Hello, hello la MUFA, j'espère que l'époque cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221, mais bien sûr la chaîne des news, la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. qu'est-ce que vous attendez yéen tamit lan ngeen di xaar dama ni abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification dina leen permettre buñ dugalatee vidéo rek automatiquement ngeen jot signal bi sans pour ngeen di sonn di def ay recherche ou quoi que ce soit. alors gars yi tey nag euh, dama ñëw pour wax ci Liloufa benn jeune talent la boo xamante ne ni ba mu commencé carrière ci aar bi yàggul noonu mais mu ngi ak talent boo xam ne bu ci boolee job ak gëm-gëm ak fayda. wallaahi je vous jur que am na mille chance ñu dégg ko fu sori sax sénégalais la nag bien sûr mais jamono ju ñu toll ni nekkul Galsen mu ngi Espagne je pense clip bu mujjee génnee sax foofu la ko tourné Espagne et du moom rek ah, gis naa moroomam yu bari yu nekk or Galsen di rab am talent aussi juste benn problème lañ am muy lan mën nañ yëngal foofu di fa toj nice parce que am na ñu leen di suivre foofu di leen taxawu di leen encadrer ak tamit ñoo xam ne bàyyi nañ leen xel mais côté Galsen du am ñu leen jox nop comme nu leen waré genre sen promotion du daw fi Galsen comme nu mu par contre nak euh, man je me dis que ni loolu wëra mëna nekk la sen promotion daw fi à 100% lu wëra mëna mën nekk la juste stratégie de communication la rek donc warna mëna mën nekk liggéey la lu wëra mëna nekk la sax bien sûr. donc lilu Fa warna mëna def loolu ben produit bu mu génnee Galsen jot ci comme fu mu nekk nuñ ci joté loolu nak lu ko koy may à part talent mooy job bu baax a baax job lu am qualité afta nga def sa promotion fii ak fële ñu la mën a gérer fii sa communication nga jël car da ciy baax trop sax communication dafa baax ci artiste. mais nag gars pour ñu mën a bañ a sori ci wax bi nañ dem tu xool xooli tuuti ci clip bu mu mujjee génnee joxe ci suñu xalaat suñu point de vue after à la fin de la vidéo yéen tamit ngeen joxe seen xalaat ci commentaire yi donc let's go ñu àndandoo xool ci toq rek ñëwaat léegi léegi ay ca. كلاشنيكوف لايت دوغال دي فراب دي كادي دي كد بيسنا لا دور بنا تد ام سوري قلبتي مات بي دور توكو دفا تي تيكينج اوف كوم دب فاينال دور توكو ديك دي تي لا كور اجن دي لدب دابا باري ديكي ديكو ديك دوكو ماسا دف دفكو سبوب دوما جل دفت من بوين مدون دون صد دوما جيتال جود فوك فوك يو ان بالا الور جاي جس نين tuuti تي euh, vidéo bi c'est intitulé Khadril Jazz double zero sound bi nag boo leen xoolee freestyle la parce que moom dafa nekk ci benn série de freestyle mais tey nag drill bi la ñu indil parce que gis naa temps yi drill mooy tendance booy ku jóg drill je vous jure sax xam ngeen loolu. moo tax moom tamit mu ñëw indi wàllam ci xew mi juste pour wane ni mën na drill li ñeneen ñi di def moom mën na koo def te bu dee drill rek kenn dàq ko ko moo tax mu ñëw indi drill. et gis naa ni assuré na drill naay sax ku maîtriser bit bi la parce que du début à la fin wàccul bit bi benn yoon mu ngi teg lu carré mu ngi teg lu nice et j'ai beaucoup apprécié. man nag euh, dama gis lu ma neex ci moom mooy flow bu mu yor je jour jure yi que flow bu mu yor c'est autre chose flow bu neex la yor flow bu mu yor dama naan jarul muy def ay punchline wala di graw graw lu noo jaru ko moom nañ ko jox bit mu mise ci flow bi nga am sound bu neex am musicalité bu nice lépp impact car déjà moom sax bu gën ko dégloo ci biir sound bi mu ngi naan dama yor flow bu hard right loolu personnellement dama koy confirmer mais ci biir sound bi aussi damay dégg mu sàndipi ki nga xamante ne ni moo di sori l'officier naan am sori këlëm sa màtt yi lii boo ko déggee da nga naan name dropping la mais par contre man Kenza 221 bien sûr euh, pig laa ko jàppee car champagne bi def na genre texte bu mel nii ci sori l'officier bu ngeen fàttali ko euh, featuring bi mu fi def ak Wizzy Kane ak Blm Pro partem wax na fa lii gis naa aussi name dropping bu mu def ci Fou Malade donc mu doon lu nice di rendre hommage suñu suñu légende yi loolu c'est vraiment cool et j'ai aussi mais gis naa ni aussi utiliser na trois langues ci sound bi muy le français le wolof et l'espagnol juste pour mën a toucher ci côté yëpp ñëpp mën koo déglu ku dégg olof mën koo déglu ku dégg espagnol aussi pareil ku dégg ku dégg français aussi pareil à vrai dire globalement nu mu joobee sound bi neex na ma trop sax technique yeeg inspiration bi langue yi flow bi j'ai vraiment adoré j'ai vraiment apprécié man nag li ma koy jox comme conseil mooy na joobaat ci côté bind car Galsen ñoom ñu bari taaru mbind da leen di neex comme punchline des figures de style et tout sama genre gi rek yéen ma gën a xam loolu donc na joobaat bu baax a baax ci côté boobu mais à part loolu tout est nickel tout est impeccable il est très talentueux en plus gëm na lu muy def kooku nag mooy Lilou Fa donc gars yi dem leen ngeen may ko nopp jàppale ko bu baax a baax teg ko loxo sénégalais la mais actuellement mu ngi Espagne il fait de son mieux pour être parmi les plus grands rappeurs am na talent mais talent kese doyul comme ni ma ko faral di waxee à chaque fois wax leen seen xalaat noo leen gisee Lilou Fa noo leen gisee euh, clip vidéo bi en plus loo leen ko jox comme conseil à vos claviers bàyyi naa mu tëmb